wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima wanbiitu anna rasulallahi basharani wal bisru inda rasulillahi maamulu wanbiitu anna rasulallahi basharani wal bisru inda rasulillahi maamulu أبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مأمول أبيت أن رسول الله بشرني والبشر عند رسول الله مأمول آيات وإن أعدائي وثبتني بكافسي نقمات قله القيل لا جمد زبرا جميلا واقتديت بمن عاق وليش مجازي عن زنيل جاءت دارا طويلا في العدا ومدو مع الأمين وكل بعد مجدول عدد برام أمين من ماسا وبكا وليس لي عن حياء ديس تهليلا مرأى لغير بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنويلا مرأى لغير بلا لقيانة أبدا وجاءني من رسول الله تنويلا يسر لي ميسر العسير مقدار هدي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقدار هدي بلا مسير يسر لي ميسر العسير مقدار هدي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على ذرية مدبرا محا توجه المكاره ليا باقي حباب ذكره وهو ليا أن يرديت وعني رادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغيري جهدي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جاد لعين يسوقه بخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي سفر وسفت نبي أو في قادنا قال والإلهام قد بيالي مال بأ بدا بي اليوم برب الغيب أغاثني ممن خلوا وخيب لا يتوجه لنحوي مطعب أني مع مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم غسبت شكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مزير من تنى غير ذاك يغني أو يضر فذاك في الدار إن ذو كرد وضر الضر والنفع من الرحمن ليس من البيدان والسودان الضر والنفع من الجبار ليس من الفجار والأبرار الضر والنفع من الوابي ليس من الأدعي والأحباب subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa comme waxtu wi dafa xaw a jige dañoo bëggoon jox sëriñ Lamine Fall mu jël kàddu ci kàddu jëwriñ Jibi Jaañ mi nga xamante ni mooy jëwriñu liggéey bi ànd kook ñan ci àndin wu rafet ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo am pas-pas ci nii ñu àndee ak moom ci liggéey bi bu ko defee sëriñ lamin gaaral na ko ñu wéyal bismillah bismillahi rahmaani rahim ahmadu jumlatil baraya ahmadu madaxahu bisal xadimu ahmadu jërëjëfati borom Tuuba asalaamualeykum mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi te di leen siyaara ci turu sunu jëwrin jëwrin Serigne Jibi Jaañ muy kaddu yoo xam ni kàddu yu gàtt lay doon kàddu yi nag dañ koy jooyal mu jëm ci mbooloo mi ci teewaayu sëriñ Mouhamadul Makhtar Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Bachir ndax liggéey bii nga xam ne ñoo koy liggéey te ànd koog mbooleem dëkk bi ànd koog mbooleem li wër dëkk bii kenn jiituwu ci sëriñ Mouhamadul Makhtar kaddu yi nga xam ne nag kii nu bokkal ànd ak moom liggéey bi kaddu yi sant lay doon kaddu yi seede lay doon ginnaaw bu nu ñaanalee ki nga xam ni mooy sëriñ xaadim am mii nga xam ne tawféex ji bu amee fii sabab bi ci moom la ko borom Touba jaarale ku ne xam na ni barab bii ñu nekk di këru xasida yi mu jaare ci monsieur le maire nii mu mel day yell ñu jotal mbooleem waaye ahlu xasida liggéey bi nga xam ne ànd nañ ko waa dëkk bii di góor ak jigéen mag ak ndaw ndax liggéey la boo xam ni ni nu ko baaxoo waxe fa sahabatu rasulullahi ya tegoon seen tànk ñun waa ngaay ànd koog suñ jëwrin foofu lañ fas yéene doxe te noonu lañ fas yéene doxe ndax mbooleem fi daaira ni wala kuréelu xasida danoo jiital seen jibi di ko xoole sëriñ Atou yal na ay leeram di yokk faw liggéey boobu nag moom lañ ànd nii nga xam ne ay weer ñoo ngi ànd di nos